Sëriñ Tuubaa li mu defal kenn xamul yow daal diglu nu ndigalam sori ay tereem bëggal liggéeyal ko joxeel saa biir waaye nag comme ci lislaam la nu ne te Sëriñ Tuubaa yoonam bi Sëriñ Tuubaa sa voix englobe toutes les autres voix. On peut appeler la voix monotone. Quand tu vois Cheikh Ibra Fall et ses, et ne, qui pas, qui ne font pas la zakat, qui ne vont pas à la main, ils sont considérés par les autres qui ne connaissent que leur voix. Ils sont obligés, eux, de faire ces choses-là ils considèrent les, par les autres qui ne connaissent que leur voix. Ils sont obligés, eux, de faire ces choses-là. Ils considèrent les autres comme les Baïfals, comme n'étant pas des musulmans. Alors que sont des musulmans, mais qui sont dans une voie différente de la leur. Serigne Touba kenn du ànd te doo doonu jullit boo nee julliwul rek doo jullit loolu de alxuraan wax alxuraan dani bi nga xamee ni fekk nañu waaji ci biir sawar si dañ ko yoolu lën di fii mu ne ah man de daawuma julli ñu ne ko ah muy daawuma leerale daawuma bernde daawuma leerale ñu ne ko ak lan mu ne man de ci mooy yàlla laa dëkkoon la conclusion kon sa dëkk sawara alors les gens ils annoncent un aya le premier mot il s'arrête et il apporte la conclusion lu tax nga def sawara julliwu moon ñu accord sa kër sawara alxuraan waxul loolu Serigne Saliou ma ko wax mun ma ko ku la ko wax kon yow sawar nga dëkk yow ndax ci beneen aaya yàlla wax na ni boo lëggee ñiy dem xur wi gën a tàng ci sawara ñu di ko wax waylun alxuraan da ko wax ñette ne mooy ñiy julli waaye yëmul foofu ñiy julli te seenum xel nekk ci leneen wax Serigne Saliou ni bàyyi leen ñuy julli te seenum xel nekk ci leneen lu dul yàlla ak leneen moo tax sëriñ Saliou ni bàyyi leen annoncé ab aaya bu njëkk bi jàll ngeen clôturer ku ko wax waxoo lis du du l'islam yàlla waxu ko Serigne Serigne Touba ak xam-xamam Serigne Touba ak tolluwaayam ak Serigne Touba. ni muy moomeel islam